yeewuwaale euh, mais nag euh, bu ñu xoolee moom gis na ne moom du courant te du ànd moom ci li ñu jot a def si ay constat moom amul ànd amuloon courant alhamdulilah la ñuy wax noonu ndaxte wax dëgg yàlla kenn euh, ñàkk bakkanam waaw moom sant yàlla daal wax dëgg fa yàlla moom bari na dégâts matériel trop trop trop waaw ndax xam naa ne moom buñ koy xayma dina sax xaw a difficile mais nag liñ mën a xam ci argent liquide bi fi nekkoon mat na huit cent mille gis ngeen ko si suñu ginnaaw chambre à bi lépp dem na am fumée gis ngeen tamit écran plat fi nekkoon ay téléphone ay chevaux yoo xamante ni mu foon or yi aussi am na si yoo xamante ni sax réewoon na mais dafa lakk bi ñu ko gisee. am na yaa naan rek yow euh, chambre à bi rek jaroon na un cinq cent euh, bon nga yow sa xaalis liquide nekkoon ay huit cent mille yére yi ñëwagul woon ay yëre yoo xamante ni vraiment yére yu am valeur la woon te lépp dara génnu si kooku pour xayma euh, xaalis bi dina jafe mais ku ne xam ne ne moom métti na. daam poso bi defoon 200000 ah, boobu moom daa seey moom waaw poso bi defoon 200000 boobu dafa seey moom gisuñu ko wër nañ ko fay ba soon gisuñu ko ndax ah? ay natt la woon benn pochette bi réer hmm. xam nga dafa dencoon xaalis banque hmm. këyit boobu moom sa la nekk ak kii ba 200 hmm. yii nii génn moom biñ xam xaymaa daal yi nga xamante xam nañ ko somme yi nga xam ne 200 mille la 150 mille ay yooyu moom weccet bii nii démb dañu ko fee indi loolu ñu ko wecc xam nga dañuy jaay léegi ñu jox ko 50 mille yooyu tamit noonu moo nekk ni weccet bi xam nga ñu 50 mille déjà yenn béykat dafa des si biir waaw. dañuy for di ma jox rek. dëgg pochette bii nii moo defoon dafa lakk. après des na beneen pochette bu doore nii. Mm. moom moo def 200000 moom. moom tam lakk na dafa seey quoi dafa seey waaw moom télé téléphone bi barki dem na ko 15 jours. mu mm. lakk moom. waaw kii la kamoon 19. 130 130 130 pochette yëpp xaalis la defoon. Mm. ak takkaay yi. takkaay yi waa. kii bi yenn or yi ñu ngi si ko wax yenn yi dafa lakk ko waaw dafa lakk ko mais télé bi ak lal yi. chambre à coucher bi rek 1 million 500 la ko jëndee woon.